asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi euh, amati nañ contente di jàkkaarloo ak à chaque fois tay nak dañu ñew Aziz Dabala ñu gën ko xam euh, ci ay euh, danse ñi aussi gën ko xam ci ay cinéma tay nak dañu ñew rek pour waxtaan ak yow Aziz nuyu nañ la. wa sama xarit ñu ngi lay fay di leen wax dalal jamm di contente ci invitation bi ku ne xam na ne Aziz Dabala alliance Kër gëj na wax parce que dama na ci ay projet na ci liggéey yu méttee fu mu looloo waral sama mag sama xarit Ibro bi ma woowee ma ne ko pourquoi pas ngeen fekk ma fi may liggéey parce que tamit ku ci nekk am nga bërëb booy liggéey te souvent su may jënd sama kër lañ may fekk. te yàlla def na amatuma jot pour toog sama kër def benn interview yéen ngeen ngeen yombal ko ñëw fekk ma fii sama saal Lions of Africa ñu war a waxtaan ak jaam ñi ak fansi waaw ah, comme ni nga ko waxee rek euh, kan mooy Aziz Dabala. waaw Aziz Dabala alliance taalibe Serigne Saliou Mbacke la di taalibe Serigne Touba nekk xale di doomu banlieue doomu pikin ginnaaw raay gëm boppam am lu mu bëgg am fu ma teg sama war war faa egg te waa Pikine seetaanuñ ma ci kooku mooy Aziz Dabala Alliance Gueulz bëgg lu baax rek nag. Euh, comme suñu série bi ma ñëpp xamee muy dikkoon bi may dem di def casting ki lañ ma doon jëlee dama dégg kastin bi yaakaar ni fecc la. xaw moon sa loolaa fa fekk mais histoire bi danse la bi ma bi ma bi ma woowee ci casting bi ma dem casting gars yi jël ma amoon naa problème parce que mosuma def cinéma mais bi ma jëlee dafa man contrat trois trois ans léegi liggéey nañu man ay atelier ku ci mel ni Serif Asfati Trezeguet Ndeye Lo Aline Ndiaye Aline Badra ñu nekk ay maître en chant yoo xamante ne ay ndaanaan ku li fadili lañ. Darma liggéey ak man def ci man loo xamante ne yee ci man lu doon nelaw muy lan film. ma lañ koy sant di leen ko gërëmee waa Pikini production di ci gisal monsieur Aline Ndiaye maa ngi koy sant di ko gërëm ak Ndeye ñoo ñu ñoo def ci man këls ba àddina gépp naan këls. mu mel ni nag danga favoriser lii di film yi euh, ba tax na aussi euh, clip yu bari gisatuñ la ci lu waral loolu. clip bi clip yi xam nga euh, àdduna juróom-ñaar nit lu lépp lu muy def rek da ci war a ñaan avancement clip moom.

Les as as dabala as dabala ne cinq préfère dem ci mbedd bi ben kat wala que ko jox ko aussi ñom ñoo ñom ñoo sen gëdd dal mais pas Aziz Dabala ñom mais pas Aziz Dabala Aziz Dabala fu mu nekk deux en deux ba deux bi ñu nekk ba deux dama ko programmer té damay dem ndax dama ko gëm kenn mënu ci dara daal ci man ku bëgg lu baax bëgg set bëgg lu rafet non boo jénnee xaas ñu liggéey la kilibal la mais pas di taxaw ci fekk i kilib yi di génn ci mbedd bi am problème pour taxi di am problème loolu lekk génn tale jarul loolu moo tax des fois damay dal yenn fecckat yi di nga fecckat da ngay gëm sa bopp di toog di xaar ñu la carte téléphone eh kaay feccal ma mais dégg benn diw génn nga daaw kaay ma feccal la.

te am lu ñu bëgg jëlee ko opté ko pour liggéey pour dimbali seen ñaari waajur non ñoom dañuy toog xaar parce que tamit xanaa xamoo télé da lay jaxaseeg seen mbokk ak say xarit da ngay dem sa xaw mbokk ñëpp ne yaakaar ne yaa ngi ay millions parce que yaa ngi jënd télé chaque jour nga ñëw ñu ne amoo leen jox ñu mer la yaakaar ne yor nga fekk yoroo nga yaakaar ne loolu ko moo tooñ yaa tooñ sa yow xaar ñu man dama fecc man du Aziz Dabala ma wax ko wax. àddina ñoo seede loolu ci ci méthode méthode bu ne. Thank yéen gis ngeen li xew ci salle bi addina ñoo ko wax lépp pourquoi pas Aziz Dabala war a mën a taxaw xaar wàllam damay taxaw xaar sama wàll Pape Diouf bu ma woowee ma liggéeyal ko Wally Seck bu ma woowee ma liggéey ko keneen ak keneen ak keneen noonu Mouhamed Niang noonu keneen ak keneen noonu Abdou Guité noonu te ñooñu liggéey nag ñoom ñu fay ma xaas bu bari mais tamit bu ma centraté seen clip jamono ji ma ñëw mais du ma dem ci benn fecckat artiste naa la kaay ma feccal la non non mu mel ni nag Aziz wax na lu ko metti euh, metti na ko bu baax nag boo leen gisee ni muy waxee rek ngeen war a xam ne metti na ko léegi Aziz nag euh, damay tëj parenthèse boobu waxtaan ak yow ci affaire Ndeye Gueye est-ce que Ndeye Gueye mu feebaree sol nga say daal dem seeti ko. non loolu moom dama ne woon du ma ci waxate dama ne woon du ma ci waxati sama staf mën ngaa ngi nii toog fekk kër yaa ngi nii dañ ma ne Aziz Dabala pour waxati ci gaam boobu noonu parce que danga na ci yoon yaa ngi ci bon voie bul nekk ay détails ba États-Unis ba Europe ba Siin si mer seen jëwrin daf ma doon daf ma doon ñaan na xam naa la nga capable bul waxaat Farambay Maroc ne ma bul waxaat Pape maintenant États-Unis ne ma bul waxaat Baye Bala États-Unis man nit ñi ma bëggal seen bopp yàllaa ko def forcé wu ma kenn sama bopp damaa teg sama empreinte marke àddina gi d'accord. da ngaa xew. non xew xewee ci topp ñaanuma yàlla xew am nañu xew xew yi. xew ba pare mer nit ñi déggoo ma de am na ñoom dañoo xew xew yi mer nit ñi ñaan ma yàlla di fi xew dama bëgg di di fi ne di liggéey lu leer ni ñi xam ne kii tappalewul day joob new ma fi di xewante ay buzz non non non doxuma ci loolu man Aziz Dabala dama mën pire feccantiwuma dem di dajale ay fecc kat bi ay tànn ba di siifante yooyu non Aziz Dabala dépassé na niveau boobu noonu lu waaye wax nag baax na mais entre loolu nga may pose question noonu dama bëgg nga tejeel mako ñu wax ci projet yi ak li ngeen fi fekk ni ñu waxtaan ko Sénégal jëm kanam. Euh, Aziz euh, looy la vie est belle mais lan ngay daw lan lutax ngay daw ma lay poser sama question ngay daw. parce que dama am dama am staff am ñu ne sama ginnaaw. lay ananas bi sama premier interview bi indi ciow li mu ko fekk Norvège mu ngi tok ak jabaram ay nii doon kilifa bu mag ta Norvège motax am na ñoo xam rek di nga gëna a sa

nañ wax ci Lions of Africa moo ñor ak sama avancement. Mm, d'accord euh, mu mel aussi Aziz Dabala kenn xamatu la ci ay mbala xam nañ la ci ay mbala sax mais euh, dafa mel ni <laughs> bale bi nga gën a mokkal ah. dëgg la parce que chaque jour dañuy changer méthode travail comme Ibro mi maa ngi ko bàyyi woon mi def ay vidéo clip bi ma woowee dama créé na site dama kontaan sama mag la sama xarit la. vidéo yi may def ak mu daf may valoriser parce que xam na talent bi ne ci Aziz Dabala nekkul dafa faral Aziz Dabala. Fanta dëkk réalisateur yi nekk Sénégal gépp xam nañ ko muy Papis Niang muy Gabi muy Gilbert képp kuy réalisateur bu mag xam nga talent Aziz Dabala ba tax na clip moo mënti nekk da nga ma dama ci ca kanam laay taxaw yàllaa ko def du samay wax dama ko koy sante bu baax di leen sant mais nañ sant yàlla rek. nañ sant yalla te ñaan yàlla yokk yàlla nañu yàlla musal ci wax ak chat ak té sant yaana mak manela yalla nañ ci yàlla musal mais dama doon wax sank lu intéressant muy lay ananas ndax coow li dafa bari da nga ma fekk sama salle pourquoi yu dans sa appartement ngeen ñu waxtaan am na lu ma bëgg a ndax nañ fecc la mën malax bi ngeen ñëwee gisal ngeen seen bop ta yakana képp kuy Aziz Dabala xam nga ne Aziz Dabala mu ngi liggéey ak lu waay mënti wax Aziz Dabala mu ngi liggey xaruma kenn ci lenn yàlla mayna ma don bi dama koy exploiter taxaw fi fi samay morom taxaw ma taxaw fa yakam tu mu ci nak dara la ananas dima ci xexle Aziz Jinne dima ci xexle ah Mët Ndiaye sama ménager sama staff sama dom yi ndey xadi ñom ñoom sek ñom xadi bambar ñom Boga dima ci xexle kon man lan lu may mer la vie est belle. nañuy jël pot ndox suñu amee lu ñu naqari naan dalal suñu xeetu julli ñaari raaq wax ak yàlla ji ndax yàlla ji xéewal kese la loolu la. Euh, Aziz Dabala nag dafa mel ni lu mu wax c'est très intéressant ku mer nag euh, bokk ah Aziz fecc bi yaa ngi ci ji sa bopp. bu baax sant yàlla autant dama dama doon dama doon xeex pour jéem télé jamono ji dañ may woo may daw kon sant yàlla. Mm-hmm. au temps fu ma déggee clip damay daw jamono ji ku ma Michael Jackson bu ñëwoon fii Sénégal bu ma bu ma contacté wul du ma ñëw Michael waxuma la ay artistes yi fii de Michael Jackson laay tegal nii de ku dàq a fecc ci àddina non bu ñëwoon Sénégal bëgg a def casting Aziz Dabala ku ko woo doo ko gis ndax marqué naa sama empreinte pare loolu jeex na xam nga la moom jafe xam nga la moo jafe ci àddina nga mën ba pare marqué ko àddina nangul la ko looloo jafe xam nga des amul ci man maa ngi ko koy bu baax gis ngeen bale bi gis ngeen variation bi am ci Lions of Africa xam nga groupe bi dañoo bëri Sénégal bala yi bari Sénégal mais papier ministre de la culture reconnaître la looloo yombul ci nga fecckat bu ñu bu ñu dof loo doonul taalibem doo doon sëriñam booy nag ci mbedd bi di fecc noonu nañ dem dugg ci saalu bale yi nag yu baax yi nag soxoruma bu ci mel ni Pa Moussa Sonko. sama mak sama xarit mang koy sante diko gërem limu débar ki débarqué mondial sama ñaari dom la yobbu Allemagne bienvenue bébé khadi ñooñu sama dom lañ chaque jour ma ngi déggante ñoom Pa Moussa mang lay sante di la gërem lay ananas yobbu fete kadi buñu manké Sénégal mom motax sama kilifa ki may liggéeyee borom Lions of Africa mu ñëw ak benen méthode parce que dina fete kadi sonu mu nekk Norvège di lekk di naan yor fa këram namul dara mais xool na xam na ni booy yi jóg ñëw nii nii ku leen jàppale fu ñu jëm est-ce que xam nga ni fecckat yi di jóg a ñëw dinañ am problème mais sant yàlla bi la ananas ñëwee ne kaa la ñu liggéey ibi saal bi ay gaynde ne fi ay acrobatie ne fi ñuy fecc lekkat ne fi kooraa bala lépp am fi mais fecckat yi lu ñuy xaar. dëgg la salle bi fees na dell namuñu dara ñun mais ku bëgg liggéey ñëwal ci Lions of Africa ndax ku koy jéem ak ku koy mën bokkul li tax ma préféré ngeen fekk ma sama salle xam naa ne li nekk fii amul fenn te suba incha allah bu ñu eggee grand théâtre yi nga xam ne lépp dëgg la. Euh, d'accord euh, kontaan nañ trop nag euh, Aziz Dabala ce dernier mot. Malika dama fa am benn fan si club bu mag te xam naa di ngeen ñëw ci soirée bi. ma waroon leen way may benn tànn biir mais ñoom ñoo programmé soirée bi ñoom ñu nekk artiste en même temps di bay seen war ci aar bi mais gis nañ Kélsi ci dikkoon Kélsi di def lu rafet ñu apprécier ma ne ma pourquoi pas mu ñoo joob ak man mu nekk assos bu rëy ñu def soirée sénégalaise bu mag le 9 février. képp kuy fans Aziz Dabala képp ku bëgg a gis lu bees képp ku bëgg a gis Aziz Dabala ci beneen méthode non loolu bu farate

yow li tax nga avancé ndeysaan li tax ngay am jàmm ndeke sa xol la fii ku ne sa xol mooy sa wërsëg mooy maa ngi lay sant di sant Bougane parce que dama ko tuddee waa Sen TV ñu ngi préparé en même temps yéen yéen a ngi préparé DJ Boubs tamit macha allah ne ma Aziz pare naa pour pour bi Dakar na door dañuy ñëw ñëppay ñëw yéen it invité naa leen. invité ah waa Maroc ku ci mel ni Farambay Moustapha ñaa Cheikh Diouf da nga dem États-Unis fek fa bay Balla mo tuddé ko ak Pape Medina sama xarit mo tuddé ko tuddé ko tuddee euh, monsieur le ministre Pape Ndong Pape gorgu Ndong monsieur le euh, maire de la ville de Pikine Ablaye Timbo Issakha Diop monsieur le maire Pape Ñambe monsieur le maire tuddé ko lay Diop monsieur le maire man doomu Pikine la dañoo fas yéene déplacé Pikine yobou ko Malika may wax waa Malika nag préparé leen takkul leen ba mel ni naanaa bogge dina ànd ak sama mag sama xarit Aziz dina mu dooleel ma comme ni mu ko doon defee ñu ñëw rëppatal di leen jox rendez-vous le 9 février gars yi bu leen ko tardé bu leen ko tardé yeneen tuddee yi nag ko ci mel ni prince borom l'Istanbul prince amul sax 6 ans mais bu dikkoon commencé seen kër kenn du seetaan lu leer laa lay wax prince Galaye Tine xam nga kon mooy papam Dame Ndo Jeur mooy papam kooku kër lay wër. baax rek am solo bu dikkoon commencé seen kër foofu en Istanbul kenn du jàpp fenn moom la ñuy yokkal télé mu toog Prince maa ngi lay sant di la gëm na la préparé yaay sama tuddee yaay sama prince number one Lamine sama xarit maa ngi koy nuyu kontaan naa Aziz dina dem ba maa ngi leen di nuyu samay doole yéen la yaakaar yéen laa am lu Aziz Dabala mel tey jii yéen la rootina Aziz Dine maa ngi leen di sant di leen gërëm gars yi kon ba le 9 incha allah février suba tamit Grand Théâtre ak Lions of Africa gars yi kontaan naa. Nous allons nous rencontrer à Aziz Dabala à pikininfo.com la voix de la banlieue nous les remercions. remercier à très bientôt au revoir.